salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni si yéen a taamu seen sit bi nga xamante ni si moo di mourides point info comme ni leen ko yàgg di waxee nag ba léegi yéen ngi seen biir émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou tey nag maa ngi doxantu ba fii nga xamante ni si moo di sura fekk nga xamante ni si mooy responsable bu mag bi ah Khadim Fall di responsable APR ancien Karamex si euh, balaa ñuy xuuse rek ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu présenté wu ak mbokku téléspectateur mourides info yi koy seetaan. maa ngi lay nuyu soxna Ndeye Thiam mboolem internet yi nga xamante ne ñooy topp site bi di Mourides info euh, di leen jaajëfal ci seetsi gi nga xam ne seetsi ngeen ñu ko di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñoo koy topp di leen balu àq ci weeru koor yu tedd bi ñu nekk te di leen bal àq euh, di ñaan yàlla nangu ñu suñu ay koor di ñaan euh, xalif de des Mourides mu Mountakha Mbacké Bassirou yàlla yàggal ko fii ak mboole njabootu seexul xadim gi yëpp. amiin merci beaucoup Serigne Khadim ci présentation bu rafet boobu nga xamante ni si moom nga def ak ñun ah, Ramadan Moubarak la ñu wax nag ah, Serigne Khadim en tant que responsable ah, ndax mën nañ xam ba xam naka ngay dundee koor gi ak ndax di nga faral di jàng alxuraan ci koor geeg yooyu. di ko yàlla santaane suñu borom parce que mooy euh, jaamu yàlla la. Euh, donte dañu fekkoon ñu jaamu yàlla mais weer la woo xam ne weeru promotion la ñu gën a occasionné wu gën a yokk suñu ay jaamu yàlla ci weeru koor bi di ko defee di julli comme ni ñu ko doon defee parce que dañoo dañoo war ndax ay doomu jullit lañ euh, di comme ni ñu ko waxee des fois ñu jàng alxuraan euh, def daal lépp loo xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ko defee occasion la ci ñun euh, pour yàlla fulal ñu suñu ay jaamu yàlla. waaw loolu moom ci la ñuy doxee. yooyu leeral am na solo torop ndax mën naa xam ba xam tamit fii ngay jullee wala jumaa ji la gën a jóge jële jege ak euh, yan saar ngay faral di jàng ci weeru koor gi. ëpp nag euh, sama place laay jullee nag moom waaw am na jàkka ju nekk à mais lu ci ëpp sama place laay jullee wala sama kër waaw euh, saar yi it comme ni ñu koy defe rek moom alxuraan moom dañ koy jàng malgré nag nekkuñ di jël kaamil bi continuer di ko jàng mais. taamu wuñ ci saar boo xamante ne dañ koy jàng mais en dañuy dañuy lépp la ñuy jàng li nga xamante ne jekk nañ ko ci dañuy jàng lépp waaw bu dee ci julli nag moom yàllaa ko def si ñun dañ cee taamu xaw ma nu mu demee waaye saaru alam nasara daal xam naa taamu nañ ko si julli moom ak <laughs> layatul xada waaw xam ñu nag nee moo tax mais taamu nañ ko ci moom jërëjëf sëñ Xaadim loolu leer na macha allah ba léegi mbokk yi ñu leen di fàttali a lañ koy woyalee ak yéen ak comme ni ngeen ko bëggee rek du ma toog ak sama invité nag te dugguma ci li nga xamante ni si ci lay yëngu muy langue politique gi sëñ Xaadim lan moo la dugal si politique waaw politique nag euh, liñ ci dugal moom dafa nekk loo xam ne dañ ko dañ ko yàgg bëgg xëy na doon nañ ko topp sax te mataguñ ko woon def su man laa mataguñ ko woon def mooy tollaguñ soo xam ne waroon nañ voté mais teewul dañ ko doon def di ko topp parce que dafa am ku ci nekkoon ku ñu bëgg lool muy président Ablaye Wade doon ko topp ci politique maa ngi koy rappelé wu euh, élection 2000 fekkagul ñu war a commencé voté mais teewul bi nga xamee ne daana ñëw Touba di campagne dañ ko li ñu ko daan fekk dañ ko daan fekk dañu daan bàyyi booba maa ngi jàng métier ci benn atelier bu nekk fële marché jeewal mais dama am na jour boo xam ne xëyuma ndax topp ko bu ñëwee kër sëñ Saaliw xëy na ñu ko fekkee euh, bu ñu ma déggee danañ ko mën a confirmer sama tenue bi ma doon sol sax bañ naa ko defoon na sopp ci gannaaw ak Ablaye Wade waaw loolu moom dañ ko yàgg bëgg doon ko topp bi ñu demee nag ba nga xamante ne nag loolu passé na ba mu ñëw ñu koy topp di ko topp mu nekk loo xam ne soit la ci ñun ñu di ko booleeg suñu liggéey ba yàlla def nag ñu dem ba xam ne daal li jot na pour ñu xuus ci wala moom ci dugal ñu xuus di ko def mais nag yàqul dara ak suñu liggéey tamit. ba xam politique lan la la apporter ak lan la lan la la mës a yàqal. waaw politique nag euh, mooy lu doy waar maanaam li mu lay apporter daanaka boo dee xool pour def te loo xam passion bi mooy ëpp bëgg gi danga koy bëgg lool ba nga xamante ne boo ko dee def. des fois sax ñu ne la politique mënut a ànd ak liggéey parce que dafay yàq sa liggéey ndax it euh, comme bu fekkee da nga bëgg benn affaire nekk ci euh, boo ko booleeg liggéey des fois da ngay dem ba sax nit ñi dañ naan ah, xam nga fii Sénégal ni mu demee diwee politique ñu ne ah liggéeyatul parce que jàpp nañ kuy politique liggéeyatoo waaw mais nag wax dëgg yàlla euh, ñu xam ne lu ñu bëgg la rek opté ko di ko def waaw xamuñ nag loo xamante lenn loo xamante ne wax dëgg yàlla mas nañu ko yàqal moom franchement lim ñuy apporté it nag mooy ñoo ko bëgg daal di ko def waaw loolu daal lañ ci am di ko bëgg bëgg ko di ko def xay na nag euh, dàqu ñu ne ëllëg mën nañu apporter leneen mais pour le moment moom dañ koy def nii rek ngir soi ngir bëgg ko. ci bàyyi woon non waaw non si du mën apporter lu ma dara parce que magum jëmm it yaakaar naa lu mu nekk. Euh, def ci ay euh, def ci def ci def ci ay temps yaakaar naa am na lu mu koy apporter même bu parti bi Abdoulaye Wade laa bëgg man moom laa bëggoon moom laa xam moom laa mas di jàppale ci politique. bi nga xamante ne it nag euh, nekk nañ ci PDS ba yàlla dogal ñu perte pouvoir bi ñun dañ faa des boobu sax daanaka mën na la ci liñ gën a engagé wu pour lan di jàppale benn candidat boo xamante ne mooy Karim Wade waa nekk karimiste comme ni ñu koy waxee di jàppale Karim Wade Karim Wade tax ñu ko jàppale mooy euh, Karim dafa nekkoon nit koo xamante ne xëy dafa am ci lu mu nekkoon am lu mu bëggoon ñu di ko topp bi ñu koy topp mais teewul ci biir PDS lañ nekk ci cercle cadre Karim Wade PDS jël na ko investir ko def ko seen candidat ñu nit ñu ànd ca loola di ca xeex ngir loola nekk li nga xamante ne moo ñu taxoon a jóg jàpp naa ne euh, fii nii ci Touba su ma doon lim mën naa ne trois personnes yi nga xam ne ñoo njëkk taxawul taxawal mouvement de soutien pour jàppale Karim Wade euh, ci Touba mën naa ne la man Xaadim Fall la ak Xaadim euh, Tall ak euh, Soxna Taay Mbàkke ñoo fi njëkk a taxawal mouvement de soutien pour jàppale Karim Wade à l'époque mi ngi nekkoon mouvement ASCAW action de solidarité et de soutien à Karim Wade mooy mouvement bi njëkk a taxaw pour jàppale Karim Wade ci Sénégal ba mu ca jógee ñu dem ba taxawal suñu mouvement bopp muy maskaw ñu ànd ci di liggéey ci mouvement boobu euh, di jàppale Karim Wade di ko jàppale mais nag loo gis dafa am foo xamante ne boo fa egsee faaw da ngay soit parce que ki doon xaar dem nañ ba xam ne nekkatul nit kuy ñëw dem nañ ba nga xamante ne leer nañu ne élection moo ngi ñëw te ñun ay sénégalais dañoo war a voté te it euh, ki ñuy xaar nekkul kuy ñëw parce que pareegul pour ñëw ci loolu nag lañ xamee ne te war a bokk ci li nga xam ne mooy doxal suñu réew parce que dañuy voté ci loolu lañ choisir dem jàppale camp présidentiel camp présidentiel bi jàppale président euh, Macky Sall jaare ko ci soxna maam Xarim Mbacke. Mhm. pourquoi yéen ñi nga xamante si yeneen jeunes yi amu leen patience ndax ñi ngi ci nekkaloon ba tey ñi ngi ci karimeg si de di xaar ndax jàpp na ne xëcc bu daggul si Euh, ba léegi du question ñàkk patience parce que yaakaar naa koo toogal di ko xaar pendant cinq ans nga di ko xaar man nga ne gisoo ko man nga ne déggoo ko mais ci biir 5 ans yaa ngi toog di ko xaar di jël say propre moyen di ko cotiser di ko def xam nga kon yaakaar naa foofu bu ñu naan euh, politique ngir xaalis kon ñooñu tax ñu woon jóg mais nag suñu demee ba nga xamante ne leer nañ ni ki ñuy xaar parce que nit bu fekkente dafay ñëw da xam ne kii bëgg na mais ñun dañu ba nga xamante ne ki ñuy àndal leer ñu ba xam kii bëgg na wala bëggatul na ngay ne xamoo bëgg-bëggam yaa ngi ci biir euh, parti bi nga xamante ne si moo di PDS nekk Karimex discours yi nga daan def ak ñi nga xamante si daan ngeen leen convaincre pour ñu ñëw ci Karimex yi tey loolu leen di wax yow waaw ci biir discours yooyu nga xam ne mu ne ñu ñëw ci booba ñun li ñu jàpp mooy PDS moo investir Karim Wade mais ñun du ñu ay nit yoo xamante ne dañoo war a dem ba élection jot te du ñu bi nga xamee ni ñëw nañ ne ba egsi foofu xëy na Karim ñëwul PDS di suñu lenn loo xamante ne lu ñu wax la lu leer te ñun dañu war a bokk ci li nga ñun dañu war a bokk ci ñiy fal ak di folli ndax bu ëllëgee ñu mën a xool ñu mën a kaas suñu ay droit ci réew mi loolu mooy li nga xamante ne moo ñu jëlee ci fi ñu nekkoon dem fa parce que it nag euh, nañu waxante dëgg nit bu fekkente ne da ngaa bëgg nga xam ne da ngaa bëgg ñu ne kii kat dafa bëgg dañuy jàpp ne Karim mii dafa bëgg gis nga man dafa am lu ma yàgg di wax muy Karim bu fekkente ne li muy def intéresse dafa war a ñëw porter combat bi ñi ma xam ci Karim xam nañ ma loolu dañu ànd ak moom di xeex man loolu d'accord bi nga xamante ne nag Karim Wade bi ñu doon xaar dem nañ ba kenn mënu la wax ci moom lu leer ñun ñu xool te xam ne dañoo war a voter ñu dem parce que nag nañu waxante dëgg gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa moom lenn loo xamante ne leer na ne kii bëgg na wala ah am na yoo xam ne man du ko fa xaar wax dëgg yàlla parce que dama war dem te damay vote ji dama bokk ci ñuy fal kon lan ngay conseil ndaw yi nga xamante si ñoo ca des ba léegi ndaw ya may maanaam soo bëggee dëgg-dëgg sax xëy su ma ko waxee gars yi yaakaar damay sànni xeer mais pour man Karim waxee gars yi yaakaar damay sànni xeer mais pour man karimiste existé tul man pour man karimiste existé tul surtout nag fi ma ko gën a mën a waxe mooy ci département bi ma dëkk parce que amul benn jeune boo xamante ne jàpp naa ne toog nga fii bi ñu jëmee ci ay élection nga toog xaar nekk ah comme Karim ñëwul astaghfirullah wala ba su dee am kenn laa ci mën a jàpp ne gis naa ko mais ñeneen ñëpp kenn ku nekk yaa ngi fa nga nekkoon ñi dem nañ jàppale Idriss Seck ñi dem jàppale président Ousmane Sonko ñi dem jàppale eh, président Macky Sall waaw léegi nag ñun ñu jël suñu choix opté ko ci jàppale président Macky Sall ñu ne ah ngeen a transhumé da ngeen a yi sax la wax ndax da ngeen a xaar nee xëcc bu daggul agsi bu ngeen taa xaar rek lu mu yàgg-yàgg Karim dina ma sa ñëw waaw mais est-ce xëcc nag buum gaa ngi fi tamit <laughs> ah xëcc dafa mel ne buum gi nekk fi ndax ki ñuy xëcc gisoo ko déggoo ko te li ngay xëcc mënoo am lenn loo xamante ne dina ñëw te it bu fekkente ne man dama jàpp ne képp koo xamante ne da nga karimiste nga te wax dëgg yàlla nga bëgg a jàppale Karim Wade man sama gëm-gëm laa doon waxee mooy nga demoon jàppale président Macky Sall man loolu laa gëm damaa gëm ne képp koo xam ne nee nga nga te jàppale président Karim moo tax du nga waroon dem jàppale ji président Macky Sall. mooy ah, dañu gis ah, ah, responsable yi ni ñu baree fii ci dëkk bi nga choix Mame Karim Mbacké lan nga gis ci Mame Karim Mbacké ba tax nga choix ko. laaj nga ma question bu ma neex parce que fii problème mooy ñëpp boo xam ne naan la Mame Karim Mbacké li tax euh, gars yi choisir ko mooy xaalis la fa xaalis la fa nekk. dafa am xaalis boo xam ne moom lay jox nit ñi mais soxna si xaalis dafay jeex te yaakaar naa ni ñu amee woon relation ak maam xari noonu la ñu amee relation wala sax bu ko ëpp ak ñeneen ñi nga xam ne ay responsable APR lañ nekk fii koo ci jël nag mën nga ne Baye Alla Sylla mën nga ne Abdou Lahad Seck Sarr Daga keneen koo mën di wax au niveau national noonu lañ fa amee ay responsable yoo xam ne mënoon nañ jaar ñoom dem rejoindre parti bi mais boo gisee ñu choisir maam xari Mbàkke politique man li ma jàpp mooy bu koy boo koy def li ëpp importance mooy nga xam ki ngay àndal kan la parce que man dama ko daan wax mosuma am leaderu politique mais nag euh, boo gisee ñu choisir soxna maam xari mooy yaakaar naa ku nekk lu nit gàtt xam-xam ci Touba war naa xam ne soxna maam xari benn li muy liggéey ci département bi teg nañ ci seen bët soxna maam xari mi ngi ci entreprise yi di jàppale jeunesse bi soxna maam xari mi ngi ci kees yi sampal jigéen ñi ay kees ñuy liggéey. soxna maam xari Mbacke lan la liggéey ci département bi. non si man laa la liggéey ci mooy soxna maam tey lu mu gàtt gàtt rek ci responsable yi ngay wax soxna maam xëri am na ay nit yoo xam ne mi ngi leen embauché ci ay entreprise am ñuy xëy di ay jeunes yoo xamante ñu ngi liggéey ak moom soxna maam xëri ñaata jigéen tey la taxaw di leen ci développement ci réew mi mu samp ci ay kees monte ko ci ay mu toll ci réew mi soxna nekkul nit koo xamante ne man ci li ma jàpp man des fois damay dem dama ko yër li que politique mi ngi koy apporté li ci nit ñi parce que benn affaire mooy wax mooy kàddoom foo man toog li mu lay wax leer na politique moment la mais li ëpp sens mooy développement te développement daf mako jital te ku ne xam da ko jital parce que buñ xolé avant les élections soxna mam xari ñaata jigen la financer ñaata jigen la soxna mam xari jàppale tay ñooñu nga xamantene tay ji man na na ne la ci lim leen doon jàppale ci ay caisse dem nañ ci ba ci liggéey ba nga xamné ne nga yor seeni kër soxna mam xari toujours miñ ci social te man lima jàpp moy bu dé damay politique di ndaw di jeune gëm ne dama wara liggéey su may ànd damay ànd leader bo xamné ne gëm na ne liggéey kat la te wax dëgg yàlla suma la waxé mom la gis ci mom ci bépp côté nag. effectivement. ànd ak moom ñu gis ni que élection yi passé nii ñëpp dañ ni Mame Khary Mbacké moo tax Macky Sall amu fi ndam parce que élection yëpp moo ko yàq lan ngay wax ci loolu. man dama wax ne Macky Sall amu fi. ndam Macky Sall dafa am ndam man pour man li ma xam li ma gis. ban ndam Macky dafa am ndam te du ma sax Macky Sall dafa am ndam soxna Mame Khary moo am ndam man laa jàpp. ah mais euh, élection wu Touba ak euh, département bi. président Macky Sall ñaata voix la fi daan am est que mas na fi am plus de trente mille voix. tey bu demee ñaata voix la fi am 67000 voix et quelque. kan moo ko mais kan moo ko indi li mës am su amee gagné damay jàpp ne kon li mu am li mës a am def. ah mais li fi def li ma jàpp mooy ñëpp ñu ngi ko fi ñëpp a ngi woon ci terrain bi. yaa ngi dégg mais ñi fi nekk daa nañ fi nekk naka jekk te mosuñu am loola kon damay jàpp ne li am tey su ñëwee bu dee lu baax ak lu bon lépp di naan gën ñaa ko indi tey li fi am. lan moo tax ñu ne maam loolu moom maam xarit Mbacke moo yàq élection yi moom man damay nit ñaa ngi koy falu xam na ne soxna maam xari Mbàkke mooy defar élection yi ci Touba parce que it man jàpp naa ne taux ci yokk soxna maam xari moo tax mu yokk ci parce mosu mos buñ ci bokkul mu yokk fi yaa ngi deuxièmement soo xoolee li nga xamante ne moom la soxna maam xari def ci département de Mbacke man dama koy jaajëfal te dama gëm ne képp koo xam ne politicien nga bokk APR même boo nekkul Mbacke wala Touba da war a gërëm soxna maam xari parce que lan dem parti opposition bi taxaw wër la ko wax ñu ne mam Xarim Mbacke pouvoir bi nga bok ay leader nek ci biir pouvoir bi di la xeex. ñëpp responsable APR ben baat lañ am moy lan su président Macky Sall gagné Touba mam Xarim Mbacke mo gagné la wax. diko xex am ci luma leer barki démb bu na ko ben responsable réew mi ne Moustapha Cissé ci boppam do na leen jox ay bon gasoil ñom ñuy campagne di contre président Macky Sall prés contre président Macky Sall da doon contre son mam Xarim Mbacke. ah bien sûr parce que ah non ñu ngi ko defal moko wax. dañ naa ci diw jox na ma nag damaa jàpp ne la ma mooy dëgg ba mu koy def du contre président Macky Sall mais contre soxna maam Karim Mbacke moo ma la déggee maanaam yeneen responsable biir camp bi mu bokk ay nit di ko xeex ay responsable jaral leen ñuy finance ay opposants ngir soxna maam Karim ñàkk département bi. est-ce que moom nekkul daaw lan la ah, saboté. mais lan la saboté ah man de gisuma lu mu parce que ñëw na fekk lañ daan am mu doublé ko ci mu doublé ko ci escort ñëw taxaw kon kay wax dëgg yàlla man gisuma lu mu saboté. Ah, man de li ma gis mooy yoon wi mu war a tege tege na ci parce que responsable yi dajale na leen ñi ku ne jàppale na la yaa ngi dégg amul benn te nag amul responsable affaire mën a taxaw fii ne maam xarit peut-être jàppale wu ma wala dara jàppale na responsable yi ñi nga xam ne gis na leen ñi nga xam ne gis na leen te jàpp ne am nañ njariñ ci département bi te bokkuñ ci biir parti bi mu dem jëli leen indi leen ci biir parti bi pour ñu jàppale président Macky Sall deuxième mandat kon li mooy li wax léegi nit la koo xam ne ñëw na ci parti bi mais APR nag moom ku ne xam ne loolu yàgg na fa même ñun ñu fa ñëw dem ak barki dem xam ne loolu yàgg na fa mais nag man dama jàppoon ci élection yi li leen waroon mooy ñu booloo ñoom ñëpp euh, a xool naka la ñuy def ba mën a am ndam comme ni ko soxna maam xarit doon defee sur le terrain wax dëgg yàlla teyit yaakaar naa yàlla suturaal na ko ci ba am na ci ndam. ban message ngay lancé ñi nga xamante si ñooy waa Benno Bokk Yaakaar seen dëngoo gin dëngoo ak réeroo gin réeroo lan nga ci mën a wax. Euh, yaakaar naa ku ne xam na ne mënul mënul doxal ab liggéey parce que bu fekkente ne nee nañ dañoo bëgg ñoom ñëpp man li ma leen di conseillé mooy ñu booloo nekk benn te xool li nga xamante ne moom mooy avancé moom mooy avancé liggéey bi parce que wax dëgg yàlla euh, xaajalikoo bi mënu leen may dara. te it yaakaar naa war nañ ci ñi ngi dem ci ay élection yu ñu jëmaat ci ay séance ñoom war nañoo xool li nga xamante ne moom lañ passé leen ko daan xañ ñu booloo jéem a xool naka la ñuy def pour mën a nekk benn ngir mën ko réussir ba élection yi ñu yàlla mën nañ ci defal ndam parce que gëm naa ne suñu booloowee wax dëgg yàlla te def ko comme ni ko xëy na peut-être su ma ko waxee nga ne ma euh, li muy sa def ko comme ni ko soxna si defee man gëm naa ne danañ am résultat te su boobaa danañ am ndam ci élection yaa ngi ñëw euh, soxna maam Xari Mbacke dañ ko dégg ci benn discours mu bëgg ni dafay taxaw nekk conseil départemental ñu gis ki nga xamante ne a demee a nekk. soxna maam Xarim Mbacke yaakaar naa soo déggee lim la wax euh, li mu wax barki démb la ko wax euh, keroog jeudi mu ne dafa am lu muy xaar ay ndigal yoo xam ne moom lay xaar tant que jotu ci mënu ci prononcer lu wér général Diène gi it euh, dafay politique. te it politique ambition la te jeune la def na fi lu nekk yaakaar naa ci département bi lépp lu fi ñu def pour nekk candidat kon war na ko doon te it war na ko mën a doon mais nag. li nga xam ne moom laa la mën a xamal daal mooy li soxna maam xarit wax te ma dégg ko man te xam ne loolu laa jàpp nee dafa am lu mel ne dafa am lu muy xaar moo tax gu ci prolongé ñu nit ñoo ngi koy déglu waaw. merci beaucoup ci boobu message xam naa sa moroomu jeunes yi nga xam ne dañuy politique rek yam ko yemale ko ci eh, dinañ ci jot xam naa dinañ ko utiliser ñu ngi lay remercier bu baax nag eh, looy tàggu mbokku téléspectateur Mouride info yi lay seetaan. jërëjëf soxna Ndeye Thiam maa ngi lay jaajëfal ma it di la remercier ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal muy équipe bi nga àndal euh, di wax ne rek am nañ kontaan trop ci dalal leen tey waxtaan ak yéen émission bi nag euh, gàtt na waaye neex na euh, di ñaanal rek kon euh, ni ma commencé woon rek sëriñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi di ñaan it suñuy koor yàlla nangul ñu ko waaw te li nga xamante ne moom moo des ci suñu kanam yi nag ñuy ñaan nag li <laughs> yi nga ni si yéenay suivre seen site bi di mourides point info gis ngeen ki ni si moo nekkoon suñu invité muy Khadim Fall ancien Karimix tey nag mu nekk responsable APR e di ànd ak ki nga xamante ni mooy soxna maam Xarim Mbacke ah, ñu ngi koy jaajëfal bu baax nag ci émission bi yombal nañ ko dalal nañu macha allah amuñu ci benn jafe-jafe Khadim ñu lay remercier bu baax waa Mouride info jaa ngeen jëf mbokk yi nii leen koy ànd ak yéen saa su nekk ah, balaa maa bàyyi nag damay gërëm ki nga xamante ni si mooy sama ah, DG muy sëñ Mbacke Dieng maa ngi koy remercier bu baax di remercier ki nga xamante ni si mooy Khadim Diouf alliance expérience ah, di remercier ki nga xamante ni si moo di Khadim Diouf tamit alliance bost ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax di leen jaajëfal bu baree baree bari maa ngi leen di jox rendez-vous dig daje ba suba incha allah rabbi ci beneen invité merci beaucoup